lu jub lu xel mana nangu mana sincèrement parler nak yeen sen bop ngeen di nax quoi ah vraiment xam nga ñom fi nekk ni dama len wax ben wax bo xamne ba legi dama bëgg ngeen japp ko dolo du jub du ci yegg da ci sangu mën si vous de da que vous kon di Macky Sénat est-ce que fo ne vous rek gëna xam Macky Sall ne nomination Abdoulaye Silla dafa violer esprit de la loi ci Sénat à code électoral lu L'article 7 de la loi sur la Sénat, repris par l'article 10 du Code électoral, interdit aux gouverneurs, préfets et sous-préfets retraités depuis moins de 5 ans de devenir membres de la Sénat. La raison évidente tient au fait qu'ils ont été des acteurs directs du processus électoral et des dernières élections. D'où cette exigence d'attendre cinq ans après le départ effectif en retraite lors des conflits d'intérêts loin des conflits d'intérêts électoraux avant de rejoindre la Sénat. C'est cet esprit de la loi qui condamne la nomination d'Abdoulaye Silla du Conseil constitutionnel comme président de la Sénat. En effet, nommé juge constitutionnel en 2018, il a connu l'élection présidentielle de 2019 et l'élection de 2022 avec tous les contentieux virulents subis par l'opposition. Il va se retrouver avec les mêmes acteurs pour l'élection présidentielle. lii man dama ka gëna xam Macky Sall dama leen laaj rek ñu ne muy gouverneur sous préfet ak euh, préfet dañ lay bàyyi ba nga def retraite ba am juróomi at ñu doog laa mën a fal sénat article 7 repris par article L10 bu sen bu bu code électoral est-ce que loolu yéen ñii di waxtaan nañ waxante dëgg rek dañ ko gën a xam Macky Sall xam nga gën ñu koo xam ñi mun nommé senaa te bokk ci partim dañ koo gën a xam Macky Sall Macky moo la gën a xam ne jaaduwul kon man débat boobu dootuma ko entretenir ti jaadu na wala jaaduwul parce que Macky Sall moo dogu na man lu ma neex laay def constitution tënku ma loi tënku ma code pénal ma jomb-jomb tënkuma moralité tënkuma ma scrupule tënku lu ma neex laay def fii ci réew mi ci loolu la dogu xam nga ñu ngi tudd Serigne Ibrahima Ndiaye ak euh, Cheikh Awa ak ki ma wax ni Abdoulaye Silla, ak Cheikh ak ak Cheikh Awa Balla Fall mi créé won M2 mouvement pour deuxième mandat Macky defoon lancement ba ca Géejawaay vidéo yi du circuler mu jël ko nomé ko Sénat mom mo le gëna a xam bam koy def xam dama bëgg ñun ñu xam ban taxawaay lañ war a am ban fulla lañ war a am ak ban fayda lañ war am te dama bëgg ñuy waxtaan ma leen di tegal loo xam ne da ngeen di xam ne bu leen can can yuur yi bu leen euh, ci nekkati ci réfléchir ay actu Macky ak actu diw ak actu diw ak actu diw actu diw maa ngi jóge ci benn ndaje bu am solo yoo xam ne ay africain yoo xam ne ñoo nekk ci àddina bi ñoo ñëwoon pour waxtaan ak ñun ci réewum Sénégal dama leen déglu waxtaan bi ba si yàgg man leen man jaru leen di nettali dama leen jox ay fee rek soo leen paree ngeen xool ndax lii démocratie am déet ma leen ñu fi nekkoon wax ay démocratie Sénégal illusion la parce que benn nit moo ñëw en douze ans dajj lépp luy acquis démocratique yu fi nekkoon ci réew mi benn nit xanaa kon ak yooyu dëgërul dama bëgg ngeen déglu ñu waxtaan ak xel fi mu nekk nii you must use your waxtaan ak xel ngeen dal bu leen yaakaar lu toll ci tarfatul ay ni ci acte yu Macky Sall di def parce que nee du rafetal demam ngay dem génne loi code électoral parce que yow le code électoral tënk parce que yow yaa jàpp na yow kat tu veux être un citoyen modèle code électoral tënk le constitution tënk la nga am respect ci institution yi mais loolu yépp soxalul Macky Sall maa ngi lire léegi ben, poste Ayib Daffé xam nga fi mu nekk assemblée nationale ñi ngi waxtaanee ñi ngi ci commission yi pour vote budget maa ngi gis Ayib Daffé léegi mu ne Aïssata ministre de la justice dafa ne lii bàyyeekoo ci CDAO, duñ ko respecté xam nga kuy wax lool kon xam na lu war a ko ci CDAO parce que bu ko leeroon ne victoire lay am CDAO du ko wax te ma ne lii nga xam ne dafa xew ci dossier Ousmane Sonko soxlawul jàng droit xama la la soxla nga bañ a doon ragal yàlla loolu dong la Vous nekkee que tax ñu son formation judiciaire nañ ko tëj amul parce que jang ba yey amna lu ko gën ban intellectuel dangereux moy ku jang bana ar ba par nafiq. malheureusement dans nos administrations

amna xam-xam de mais xam nga lu dé ci xolam nafiq ak jubadi nafiq ak jubadi xam nga kaay ñu waxtaan tuuti damay gis kenn ku may wax na ma wi pap Alé yow da nga changé woo da nga daan def ma ne ko mais lii fi Abdoulaye Wade dan def moo gën ma tane moo gën li Macky Sall def ci réew mi. billahi wallahi wataalaahi ci wàllu démocratie ak respect des des institutions Abdoulaye Wade li fi def moo gën mais doo ko sax comparer si tu si tu es honnête li Ablaye Wade def xam nga nag man soo leen may déglu da nga may déglu ak xel woy jël na fi doomam mais Macky Sall jël na jabar doom belle famille oncle neveu xanaa ku daan xeex doom ak loolu buñ la joxee bii nga nga war a jommi kan moo ko dénoncé si on était Karim objectivement si on était contre Karim contre Karim parce que me dit « mais ne pas a respect des institutions quand même tu peux tout lui reprocher

man de fu mu ko waxee ma toog ma ne ko président ma fàttali la fi mu nekk nii lépp lu ñuy jéem guddeeg su ngoon xam nga lan la mooy am pexe wala lay bu ñu reporter élection présidentielle parewuñ de parce que man waxuma ko ki service renseignement français ça wax na ko nee na Macky Sall ñu ñoo ko imposé Neuf deuxième mandat mu def deux mandats bëggoon na troisième bi ñi nekkoon ay matière grise am di togg loolu ci bopp bi xam nañ leen bu baax Sal rek nos wax no pat tout il passe inaperçu Nous na fenn sax président conseil d'administration mais ñun yalla def nañu radar yeb dañ koy xol xam ne pat parce que nous préférons rester à côté du peuple sénégalais de peuple sénégalais dafa wàcco président Macky Sall ci anam bépp alternance 2000 2001 ba mu ñëwee nguur ba tey ji amul lenn lu ko askanu Sénégal deful ci teraanga amul amul lenn luñ ko joxul ci teraanga ñun askanu Sénégal da wàccoon na ak Macky Sall amul lenn lo xam ne Macky Sall soxna ko soxla na te sénégalais yi joxuñu ko ci jàmm ak salam en retour lan lañu fayé réew mi bu amé kaw dama leen yàgg wax fi ya a aucune la preuve il fait ce qu'il veut bonne opposition nga fi gisal opposition bu fi taxawoon jonn jàkkaarloog Macky Sall c'était incarné par Ousmane Sonko mu neex mu naqadi tey jii Macky Sall bu waxoon ne damaa bëgg a def troisième mandat bu sénégalais yi jogul du benn opposition bu am fi benn opposant bu radical véritable ñeme ko woon jëloon bakkanam teg ko ci kenn la woon mu nekk Ousmane Sonko dëgg neexul nañ waxante dëgg rek te yàlla tax nañ waxante dëgg te yàlla tax Macky sàll bu deful troisième mandat Pastef am na ci wàllu bu rëy bu mu ci def Ousmane Sonko am na ci taxawaay bu mucc ayib ndax liñ ko teg leader boko fi tek fi senegal mu dem ram jébbulu ji la preuve maké ngi salfaña sénat loko meunal ñing may wax sax benen xam nga dafa am ñu siiw ndekete am na kenn kun ma wax na ñu ne ma kooku soxnaam doomu ndeyu madame Faye Sall kooku dafa commencé dox ma ne ko woo oh, père man li ma gëm xam nga mooy lan Macky Sall na jël madame fay Sall yóbbu ko présidente Sénat jël Amadou Sall ministre de l' intérieur jël conseil conseil dafa lépp li ci des ci peuple sénégalais la bi la dong nag. peuple sénégalais bi rek à l'heure actuelle tey ñoo mën a toog ku nekk nag nga yeewu seet ku bëgg léemu bi da ngay teel a ñëw